Bassirou Diomaye Faye cinquième président bokk na ci li yëglekaay yëpp nag andi ñu bëgg leen koo tënkal yéen ñi nga xam ne daanaka jotu leen a am jotu génn liir li nga xam ne mooy yëglekaay yi daanaka fi mu toll nii sax boo ëmb sens gis nga yëglekaay bii di Walfadjri moom ab anniversaire la sax bu mu jàpp ni moom mii di Bassirou Diomaye Faye moom la koy souhaité nga xam ne la boo xam ne bu yëglekaay bi jàpp ni ci suurub anniversaire am bu mucc ay bi la ci passe deux euh, ba lépp lu ngeen bëgg xam ci yëglekaay yi mën ngeen cee dem waaye bala ñu kon na ci yëglekaay yi ñu ngi sàkku ci yéen abonnement yi ba pare ñaanal leen jàmm abonnement yooyu bu ngeen ko defee day tax lépp lu ñu mës a dugal seen bi euh, da ngeen koy mën a coppati ndànk seen bi nag bokk na ci lim gën a nekk spécial si mu ci wàllu ay njàngat yu am solo comme lii euh, baneen bi tamit daanaka sport tamit bokk na ci li nga xam ni maanaam ñu bari jàpp nañ ni loolee lam ciy liggéey liggéey bu mucc ayib la waaye tamit élection yi jàpp nañ ni liggéey na ci liggéey boo xam ne bu ngeen arrêté ci suñu vidéo liggéey la boo xam ne daanaka donte seenu YouTube lan yor yoruñu télévision góorgóorlu nañ bu baax a baax ba kenn kom ci man di doon mën a xam fi ngay teg sa tànk ak fi dëgg féete ñu continuer yëglekaay ginnaaw bu ngeen partagé vidéo bi maximum de partage victoire historique bu kile nga xam ni moo nekk Basirou euh, Diomaye fay bi nga xam ne daanaka neexut a sax daanaka nattable benn yoon ci biir li nga xam ne mooy xool yëglekaay yi xool réew mi xool environnement bi loolee la source yëglekaay ñëw source yëglekaay nag cinquante sept pour cent maanaam moom la jàpp ni loolee daanaka euh, mënatu la deñ cinquante sept entre cinquante huit pour cent maanaam téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñaar ba juróom fukk ak juróom-ñett ci ay doomu aadama nee nan Bassirou Diomaye Faye wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg rek yaanu saf yaanu doy ci li nga xam ne mooy yile yëglikaay moom moom li mu ñëw rek amul sax wax ju bari daa ñëw ni système bi jeex na fin de système pour li nga xam ne daanaka mooy mouvement euh, présidentiel yëglikaay yu buggaan ngay dane bi moom yaakaar naa ni wu fii jaaba jongeeg di wër-wër loo yi naan lu muy wax ak loolu noonu dafa ñëw rek jaar ci digg bi loole nag nekk loo xam ne lu am ma am solo la ci biir yëglikaay bi yëglikaay boobee nag daanaka di tribune buñ fa jógee dane xooli beneen yëglikaay Euh, ki la di euh, quotidien quotidien rek ñëpp xam na ni kii ko moom mooy nekk ki la nga xam ni euh, daanaka moom ñu bari sax jàpp nañ ni état la àndal te it mën naa bañ a dem noonee waaye moom moom moomay di borom yëglikaay bi daanaka tey ji li mu indi ci xëtt mu njëkk teg ko ci taabal ji di kii di Madiambal Diagne mooy Diomaye en tête maanaam présidentielle 2024 première tendance yi nga xam ne tombé na amul werante Diomaye daanaka écrasé na Amadou Ba ba nekk ca kaw yëglikaay bi nag nga xam ne mooy jamaay mu dóor garaaw bu bu garaaw daal di ñëw ci yëglikaay bi nag daal di wër ndomba ki la nga xam ni moo nekk kii di compère am di Amadou Ba mi nga xam ni ñoom ñaar ñoo doon ànd di xëccoo lii la di élection yi Amadou Ba ci suuf jomaay ci kaw euh, daanaka yëglikaay bii di réew mi espoir nga xam ni réew mi moom lu ci ne war nañ ko mën a laaj moom mii di euh, réew mi es réew mi yëglikaay jomaay la jàpp ni wax dëgg yàlla maanaam sori na lool lool lool lool ca kanam maanaam bu fekkonte ni maanaam ku ni la moom waxuma la daw sax waaye avion sax boo ko doon nga mën a jàpp jamaay jamaay nag tàllal na la nga xam ni daanaka mooy loxee wana ni maanaam moom mii kenn waxatul waxi président tas na marché bi yëglikaay bi nga xam ne mooy direct news direct news indi na direct yi maanaam Bassirou Diomaye Diakhar fay noonu la ko tuddee di tur xam ne sax tur wa nga xam ni boo demee ca njagañaaw loolee la ñu xam ko nag ñaaw gi nag jàpp na ah, ki nga xam ne mooy Amadou Ba wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg rek falaxee na ko dugg pale maanaam ne ca kaw nag gis ngeen ko Diomaye ñu teg ko teg palais de la république mu ni coow ca kaw moom mii di président gars yi xam leen li ngeen koy wax parce que nouveau président ngeen am kon daanaka fi mu nii war ngeen ko mën a coppati ndànk mii di jamaar Bassirou Diomaye jaxeer fay yëglekaay minute direct wu sax andi na ay paas ak firnde yu baree bari yoo xam ne jàpp naa ne bu ngeen yëree yëglekaay bi di ngeen ko euh, gis bu baax a baax ndax day am solo euh, firnde yi ngeen mën koy xool bañ a tayal yëglekaay bi di les eco nag man maa ngi ko daan gis ci pomme terre bu yomb ak euh, bu yomb maanaam koom-koom Sénégal waaye tey jii yëglekaay bi di les eco dafa koo gis mu ñëw daal di kañ qu'il est di cinquième président de la République du Sénégal di ndaw du kenn ku dul Bassirou Diomaye Diakhar Faye cinquième président loolee lay les éco ñëw amul sax lu muy ñëw di ko diit diital ak wala mu koy wérwélo moom it andi na ay ferme ay firnde ci paas yoo xam ne benn ñaar ñett ñeent juróom juróom-benn juróom-ñaar juróom-ñett juróom-ñeent yi dayoo xam ne daanaka fegg na ko ci sama côté di joor pour yéen ñi nga xam ni bëgg ngeena xam li tax mu indi loole loolee tendance yi nga xam ne favorable na ci Bassirou Diomaye Faye yëglekaay yi ñun tànn yëpp bari na kaar macha waaye amul benn yëglekaay boo xam ni maanaam taxaw na di weddi victoire lii lii di Bassirou Diomaye maanaam euh, ñëpp danoo ànd ni Bassirou Diomaye Faye tas na carte gi loole nag xam naa ni moom day nekk lu xaw a wér nag ndax bu fekkente ni amul kenn koo xam ni contredire na kii di Bassirou Diomaye fay kon mooy victoire bi leer na ma jàppoon ne nag démb moom heure bi gars yi waroon na tas match bi waaye laas yëglekaay moom tamit loolu la ñëw ci li nga xam ni mooy tendance yi nga xam ne ci mbindum rus dansé baaxul ci gouvernement bi mooy maanaam Bassirou Diomaye fay dugal na leen ci yëglekaay bi ci ab saaku ñoom ñëpp takk leen bàyyi leen fa dem yëglekaay bi nga xam ne mooy soloy nag maanaam moom nag uh, di yëglekaay boo xam ne ci gouvernement bi lene dafa dellusiwaat ci wat bi nga xam ne moom ñëwul ci diw a gañe ak diwutu gañewul ndax moom ci mouvement présidence bi la bokk ndax jàpp naan la sole journalu euh, li lay di euh, état bi la baan kon moom lu mu ñëw di ab jant bu ni fàng nag waroon a leer nañ waaye daa ñëw ci li nga xam ne moom woote yi nga xam ne jàpp na ni woto la yoo xam ne maam moom mënees dana jàpp ni wote bi jaar na yoon loolee la indi ci xëtu njëkk indi li nga xam ne sax daanaka mooy parité mooy jigéen ñi nga xam ne daanaka def nan woote bu am am solo enquête enquête am nag bi ko enquêté ba teg ko ci taabal ji Bassirou Diomaye Faye Bellingham euh, la ñëw teg ko ci taabal ji moom mii di Bellingham ñu gis ko gone yi di ko dàkkantele lool ndax Bellingham képp ku ko xam xam ni jàmbaar la ci wàllu football tey la muy doxal ci football football meilleur am na solo waaye lii nag du football daanaka mooy jomaay mu jël li leen di état bu Sénégal buñ ko ko joxee ak buñ ko ko joxul ak bu ñuy xaar teeg ak bu ñuy xaar suba ci enquête yëglekaay jomaay tas na match bi jaxase carte gi fi mu toll nii moom deuxième tour amatul ay waxi deuxième tour ak ay cinquième tour ak yooyu Bassirou Diomaye Faye euh, maanaam ca présidence de la république bu ñu demee ci benn yëglekaay Diomaye euh, mooy président loole la yëglekaay bi bind bés dix jours teg na ko ci taabal ji amul werante benn koppati la dóor dóor benn xaftaan bu weex loole nag ñu mën na see jàngat ni kii di Bassirou Diomaye en Faye jàmm ak salaam ak afiya la ci mila réew waaye Diomaye mooy président loole yëglekaay bi indi na ko désormais démb ba tey jii ñëpp xam nañ ni carte bi moom bu ay wote mooy fal président marché bi ñu bari jàpp na tas na yëglekaay bi nag moo tax mu ñëw moom mii di bés di euh, bés bi di jour bés bi du jour sax andi na ko ci ay xëtu yaatu ngeen mën a dem ci passe deux passe quatre passe cinq passe six ba page sept euh, loolee lépp ngeen ko demee moom yëglekaay bi yaatal na ko ci ay euh, article yoo xam ne bind na ko di leen war ay firnde ci quelqu'un boo xam ne quelqu'un bu yaatoo yaatu la moom Bassirou Diomaye Faye ci li nga xam ni moom la gagné tey yëglekaay bi andi ci ay firnde yu leer a leer beneen yëglekaay boo xam ne Diomaye Faye moom mennum koppati la dóor ci taabal ji rek ak garaam bu ba mbogosu bu baax a baax maanaam pour tepp-tepp ndox yi bañ koo laal ndax démb ginnaaw victoire am maanaam yëglekaay bi euh, jàpp na ni ginnaaw victoire am démb wis wis yi mu wis ñëpp ñëpp na jàpp na ni kii di Diomaye Faye nitu jàmm la Bassirou Diomaye fay ci yëglikaay bi di yor yor yor na jàpp naa ni ci pro Sonko yi lañ bokk waaye nag tey moom amul pro Sonko amul pro Macky ñoom ñëpp ñoo ànd defum diiraat jàpp ni Bassirou Diomaye fay leeral na carte gi tëcc yi ak du rek dóor yi métti na lool ci li nga xam ni mooy yor yor yëglikaay buñ jógee ci yoor yooyu yëglikaay dañuy dem ci yëglikaay bi nga xam ne di mooy moom la ñuy mujj mooy Bassirou Diomaye Faye nouveau président de la république mooy li nga xam ni moom la yëglikaay bi andi ci li nga xam ni mooy présidentielle yi doon am démb ci atum ñaari junni ak euh, ñaar fukk ak ñeent di atum ñaari junni ci euh, ñaar fukk ak ñeent ci at ñaari junni at ak ñaar fukk ak ñeent ñu mën koo confirmer kon match bi tas na foofu gars yi ma tas match bi ci beneen vidéo boo xam ne gars yi toppaloo ne tey tey la lépp dana gën a leer ci kanam tuuti ñu ngi indiwaat yeneen vidéo yoo xam ne am solo la sport bi gars yi jéggal leen nu ko tey du bari luñ ciy dugal.